àndandoo sant yàlla te sabbal ko tuubal ko sunuy bàkkaar seere ni amul benn buur bu dul moom seere ni li mu namm ci doomu aadama bi benn doomu aadama benn mbindéef mënta dox digganteem ak loolu ñu ngi seere ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fàggu téefu suñu borom la muy ab yonentam di ab jaamam li mu ko yónni it mat na matale na ko sëkk muy lislaam ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sëlmal ci moom di ñaanal képp koo xam ni fi yonent bi sallallahu alayhi wa tegoon tànkam yaa ngi cay teg sa tànk da ca góorgóorlu te ñaan suñu borom mu mottali lépp ñu ngi yeesalaat iya sunu tuub sunu njëggalu jëm ci suñu borom lu bakkaan yi bari bari njëggalul suñu borom moo ko gën a yaatu kon yàlla nañu suñu borom dugal ci biir njëbbalam googu njëggalam googu mbokk julit yi ñu ngi mas taw képp koo xam ni bu xiinee nga jaaxle am na ñoo xam ne fii ñu toll ci seen biiri néeg mënuñu faa dugg ndax am ndox kon liñ ci man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne soo gisee ab safaan boo ko mënee dindi ak sa loxo nga dindi ko soo ko mënta dindi nga wax ko soo ko mënul nga naqarlu kon ci fañ ca tollu rek ci sunu kàttan foofu lañ cay waxee ñi nga xam ne nag ñoom la yàlla dénk kàttan googu ngir man mën koo dindi yàgg nañu wax fii ba tàyyi ni leen nañu yërëm nit ñi te yitte woo seeni yitte nit koo xam ne nangu na laa jox poto nga dàqale ko ko nangu a laa jox kër nga dàqale ko ko di la fay salaire boo xam ne moom amu ko lépp ngir bëgg nga taxaw ci ay yitteem boo dee gor war ngaa mën a taxaw ci ay yitteem kon loolu bu amoon xëy na yaakaar naa yu bari yenn yi dina am sax waaye yu bare bari dina wàññi ci nit ñi te dañuy gis ni dinañ wàññi waaye dañoo gis ne day wàññi day yokk kon ñu ngi soññ képp koo xam ne yàlla jox na la kàttan te nga war a mën a def muy pouvoir muy lu mën di doon nga góorgóorlu ci dimbali ci doomu aadama ginnaaw loolu tey ñu bëggoon waxtaane loo xam ni waxtaanam xajul ci benn du ñaar du ñetti waxtaan waaye nag day luy teel doomu aadama yi mënee su cee wax it ba dajal ko ndax day dundu doomu aadama muy lan mooy sëy moom bi suñ boroom tàmbalee dafa jël si sunu maam seydina aadam boole ko ak soxna soo xam ni sunu maam la foofu la lépp tàmbale mu mel ni nag lépp lu mën doon rek foofu ci kaw institution boobu ci la ko tënk muy sëy kon muy lu rëy rëy loo xam ni dund gi daf ci aju lu baree bare aju ci kon su ma waxee ni du lu ñu mën a waxtaanee ci benn jataay du ñaar du ñett ñu mën koo comprendre waaye su ma waxee ba noppi kenn ku nekk dina am loo ci mën a dolli sax ci sa xam-xamu bopp euh, boo xam ni euh, dina mën a nekk lu ñu waroon a mën a dolli ci wax waaye dafay loo xam ni dafay dund gi waaye day jafe-jafe yu mag a mag yuy yoo xam ni fi mu toll liñ ci seetlu ci li ci juddoo dafa bari bari dafa bari lool nga xam ni kon waxtu wu nekk rek dafay toll nekk ci actualité mu war a nekk lu ñu war a waxtaan comme ni ma ko waxee nag du lu ñu mën a waxee ci benn jataay moo tax ma bëgg ñu def ko lu mu néew néew ñetti jataay benn bii nag tey ñu jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy woowee kilifa yi ndax ab sëykat ñii ñoo koy taxaw mooy kilifa yi ñaar ñi bëggante muy kii sëy yi ak ki bëgg ku sëy si ci moom ñett ñoo ñuy ñooy ñi ci ëpp solo ñu si des ñëpp dañuy accompagner dañuy bokk dañuy dañ ciy bokk rek ngir mbir mi gën a yëwén waaye ñii ñooy ñi nga xam ni ñooy ñi ci ëpp solo te di ci yàqu yi souvent bu yàqoo ci ñoom ñii dafa am koo xam ni la ko war dëgg-dëgg def ko ci biir bi kon gis ngeen ni sëy ci boppam ñii nga xam ni lu faagaagal doomu aadama ak lu ko ñàkkal solo lu ko ñàkkal fayda bokku na ci institution yi nga xam ni moom la ñu gën a e, sonnal ngir fës yéeni mu jóge fi am na société yoo xam ne moom ba fa demee dañuy fexe rek ba loolu moom ñu nu ñuy def ba mu mën a dañ ba mu mën a wàññiku ba doomu aadama yi nit du demati ba toll ci ab ay at di wax ni man dama war a wuti soxna wala nangam nangam am na ñu bare bari ñoo xam ne ci foofu lañu nekk di mu toll ñooñu nag ñooy nooni doomu aadama ñooy noon yi li ñuy wax humanité li tax ñu koy attaqué mooy liy defaru lépp fa lay defaroo waaye li yàqu yëpp fa lay yàqu sëy boobu nag ngir mu taxaw suñ boroom dafa am ñu mu waxal ni leen takk leen sëy bi kon dafa mel ni ñoom la interpellé dafa ni leen yéen kilifa yi takk leen sëy kon ñoom la suñu borom njëkk a waxal kon ñun bu ñuy waxtaan ci ñoom lañuy ñuy njëkk a waxtaan kenn ku nekk nag ak nang ci nang ca doone nang ca doone kilifa euh, kilifa yi ñooy takk sëy yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ab sëy du taxaw mukk lu dul kilifa ya ñoo ko ñoo ko ñoo ko fas il faut kilifa ya nekk fa waaye il faut que moom ay seede kon yooyu di yoo xam ni duñ ci dellu ndax mooy charte yi te mbirum fiq la waaye loolu dafa leen di jox rek rôle bu mag a mag boo xam ni kenn mënu leen cee remplacer waaye dafa yëmul rekk ci ci fas ko seen rôle mën nañ koo tënk ci ñetti ñetti barab bu njëkk ba mooy tànn ga ñaareel bi mooy fas gi waaye ñetteel bi mooy buñ ko fasee ba noppi nag ñu fas yéene ba sëy ba sax te te loolu ñetti étape yooyu nag amu ci benn boo xam ne kilifa yi seen loxo mën na cee jóge moo tax mag ñi déggoon àdduna di wax ni ab njaboot bu jigéen moom ak njaboot ci boppam dafa mel ni sax maanaam sab loxo du ci ba keroog ngay ba keroog ngay moom même bu ñu génnee sa biir kër dem tabax tabaxi kër feneen wala ñu nekk feneen it sa loxo mënu cee génn mukk kon foofu fi mu njëkkee ngir sëy yi dëgër te fase mii am te yaatu mu wàññeeku fa muy njëkkee mooy waajur yi ci seen bopp ca yarub gone yee ci boppam fa la ñuy tàmbale yar boobu nag dafa am benn tomb boo xam ni suñ yonent bi salaam ñu ko tënkaloon wax ni mooy xaaju lislaam mooy muñ loolu dañ ko war a jàngal gone te mu mel ni bu ñu nattee ni ñuy yare tey ñu bari ci ñun dañuy dañuy demee seen man-man ci seenu njaboot maanaam du euh, xale bi lu mu bëgg même soo ko amul sax léeg-léeg da ngay sacrifier dem uti ji ko boo ñëwee def ko ndam xale bi kon moom xamul bëgg-bëgg bu saafarawut ci loolu lay dund bëgg-bëgg bu mu am ñu saafaral ko bu ko defee bu demee ba nekk magum jëmm nag mbir bëgg-bëgg yi taxaw ci kanamam bari lool te yu ci bari kenn du ko mën a saafara mooy tax muy salit lu mu dugg mën na caa génn ndax moom yitteem dëgg-dëgg mooy bu amee soxla il faut que mu faj kon foofu la problème bu njëkk a nekk mooy yar bi ñuy yar gone yi fexe ba dugal ci ñoom ak muñ xam ni àdduna loo mën di am tey suba mën naa soppeeku ñu def loolu ci gone yi loolu bokk na ci yi nga xam ni bu ñu ci góorgóorloo te loolu responsabilité kilifa yi la bokk na ci yi nga xam ne dañuy dimbali ngir sëy yi ñuy takk muy mën a dëgër ndax xale yu jigéen yi souvent bu ñu leen yóbboo ci seenu sëy njëkk jafe-jafe bu njëkk am rek dañuy daal di dawaat dellu seen dellu seen biir kër bàyyi bu ñu toogee gis ni la ñuy togg fii ak lañu daan togg seen kër xaw naa wuute mu commencé naqar ci ñoom néeg bi nga nekkoon ak néeg bi nga nekkoon sa kër xaw naa wuute mu xaw a naqari ci jigen ji fi nek di saw si saw di wajuru sa borom keur ni mu mel ak sa nday na mu meloon wuute nañ mbir mi commencé nakar ci yow nga saabi bu ko defé kon bu fekkee ni jàngaloon nañ la ni la aduna ci bopam lo fi gis muy lu neex inna maal usri yusra ya manam lu neex ak lu nakar ñoy and ñom ñaar ñu jangal la ko nga xam ko mu sax ci sa xol bari na yo xamni du la yëngal te fi ne bari na sey yu tass yo xamni la ko tass ñom ñaar bi ñi dajale di len ko laaj ko wax yu ñàkk fayda la li ko waral nag mooy muñ gi ñu war def ci gone yi dafa commencé des suñ toll te nag génération bii fi génn bii di ñëw sax ak liñ ci seen yàlla nañ ci yàlla musal waaye bu egsee mooy gën a mooy gën a yées yàlla muñ ci loolu mooy bi njëkk ñaareel ba mooy waajur bi bu eh, kii bëgg si sa doom di jigéen bu dee doom ji jigéen nga yor da koy bëgg si wala nga yor dom ju goor kamuy muy bëgg tànn googu dang ca wara war a dugg da nga caa war ni sërëx do ko bayyi mu tànnal boppam bu tanne ba nopi ni la bayyi ki la bëgg wala sama ki diw sang mi di mo fi ñew di ma seet yow da nga wara wut sa tan bopp sa tan googu nak li tax mu indi jafé jafé ci jamono biñ tollu moy tan gi ñu bari ci ñun dañ ko teggatul ci ay critères yu xam ndax li nga xam ni mom lañuy ñuy nit moy ay jikko ak mbax ak fu ñu yaakaar ci moom euh, maanaam nit ku am jom bu dee góor nit ku am jom nangoo liggéey te xamuñu ko ci ay caaxaan ñu yaakaar ci moom ak yërmaande te fa mu yaroo ñu xam ne ñii kat nit ñu bëgg baax la loolu ku mel noonu bu ñëwee sa kër warut am hésitation waaye nag lan moo lay xamal loolu il faut nga seet ndax du ku ñëw sa kër nga man koo xam kon tànn googu waajur wi daf ci daf ci am doole bu baax a baax a baax tànn gi kon deesu ko teg ci am-am waaye dañ ko war a teg ci ak mbaax ak jikko ki fi gën mu yonente bi sallallahu alayhi wa bi mu amee doom Seydina Ali da ko may te boobu Seydina Ali amul lu mu joxe can amul dara nga xam ni jaaro bu mu yoroon moom la tekki ndax yonente bi dañu ko can gi ba mënta ñàkk mu génne ab jaaro bu mu yoroon jaaro boobu ci lañuy ñu canale ki fi jur sët yi gën a baax muy xasan ak Useyn parce que li yonent bi doon tànne lu leer nañ la moo tax bi mu tànnalee sayyidatuna Fatima tegu ci baat waaye bu fekkee ne nag waajur bi moom it day tànn di ko seet ci kaw li waa ji am ak oto bi mu gaaree ak ni mu mel loolu day nekk jafe-jafe bu dee it waajuru ku góor ki wala waa loolu ci jigéen ñu surtout bu dee sa doom ju góor dafay wuti jigéen waajur bu jigéen bi souvent dinay seetlu ndax fam ba muy dugg ndax mën nañu wala mënu ndax bu leen joxee teraanga ndax dinañ ko ko delloo wala déet li may wax ne jigéen ñi xam nañ ko ngi ci ginnaaw dégg li may ndax li ma teraanga ji su ma ko joxee ndax su ma fa joxee cinq cent mille ndax dinañ ma dellu si waata un million wala déet léegi nag loolu bu ko sa doom xamee xam ne yow ci kaw loolu ngay tànne ab sëy mais lu ko neex la la indi parce que yow yow si boppam da ngaa tegu ci kaw loolu boo teg woon ci kaw yoon sa doom du ñime ba fii may wax ak am na fi xale jigéen yoo xam ne ñime bu ñoo fori benn waay mukk di ñëw seen waajur ñu leen kii la ndax jaaral na ñeen fa ñëw war a jaaral waaye bu fekkee ne nag waajur ci boppam tegul ci kaw yoon mbir mi day jafe te loolu nag ñu seetloo seetlu tànn ki ci boppam ak ni ñuy tànn critères yi dafa war a leer critère bi nga xam ne nag moo ci wér te wóor mooy critère diine ak critère ay jikko yu rafet jikko yu rafet nag bu dee góor jikko moom mën mënta rafet góor moom mënta rafeti jikko te nanguuta liggéey ci jikko yu rafet yi ñuy tànne góor la bokk ndax jom ci la bokk am alal nag ak ñàkk ko loolu mbirum suñu borom bari ne ko ak néewale ko mbirum suñu borom waaye nag góor bu deful dara yaafus nga jël sa doom jox ko ko loolu nag lu la ci dal yaa ko teg sa bopp yaa ko teg xale bi kon muy ñaareelu tomb ñetteel bi mooy waajur wi nga xam ni moom lañuy ñaan si doomam loolu nag ci ñi yor ay doom yu jigéen ci lañ koy gën a jëmal ñu bañ a teg ay ndëgg sërëx ci kanamu gone yi xale bu ci di di kurti kurti di daan nga xam ni wóor na la ni kii journée cinq mille dix mille francs lay lijjanti dajale cinq cent mille francs wala un million nga bëgg koo may sa doom laaj ko un million ba mu jox la ko ñoom ñaari ñëpp ñu delluwaat nekk zéro loolu yaakaar naa am xel mu rafet waru koo ànd wax nañu nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo jàngaloon ni xam-xam bu rafet fu ngeen ko fekk ni ngeen ko jëli am na ci xeet yoo xam ne bu ñu lay may soxna bis bi ñu lay may soxna kenn ku nekk buy ñëw day indaale loo xam ne bu noppee yéen ñaar mën ngeen a lijjanti ñaar seen ñaari at yi ñëw ci seen kanam moom bu soobee yàlla du ngeen soxlaal kenn dara ñun nag boo takkee soxna ba nopp ciital ba nopp boo moytuwul li nga yorul lépp fa la moo tax gone yu baree bari bi ñuy am ñaar fukki at ak seen xel a ngi ci seeni moroom ngi leen koy tooñe waaye ñëwuñ ci parce que kenn ku nekk bëgg ngaa sàng sa bopp sutura li nga denc lépp ñeent fukki junni la te dégg na ni soxna moom bala nga koo takk ñu ñu ñu laaj la euh, téeméeri junni wala lu ko ëpp boo jëlee sa ñeen fukki junni ni sa say waa kër damaa bëgg a takk soxna ñu ne la dinañ la jàppale ñu ci baree bare dañ lay jàppale dugal ko ci biir alal jooju boo doxee tuuti ñu la xoole da ngay takk soxna problème bu ngeen am ba ngay takk soxna maa la takkale woon soxna bu dee deux cent mille nga am ñu jël seeni trois cent mille teg ko ci bu ngeen amee jafe-jafe rek ñu tàll jox lañ tàll ñu la ba ngay bu ma fontoo ndax ba ngay takk soxna maa la takkale woon moo tax gone yu bare bari fi ne dañuy tollu ci war koo ut bëgg ko te xam ni war na ci ñoom waaye ñi muy ko def kon waajur yi ñoo war a dimbali nit ñi ci côté boobu muy beneen li may wax nag waree su cee dégg ni ku ñëw sama kër góor bu njëkk a ñëw taxaw ni dama bëgg sama doom ma yanu ko may ko ko déedéet booy joxe sa doom war ngaa seet ki nga koy jox ku mu doon lu am am solo nit du ñëw présenté wu tey nga ne ko demal nga indi guro ma may la déedéet dafay xaw a nuru sànni mbir yi déedéet da ci am responsabilité ndax bu ñu noppee da dafa dul wàccati ci sa kaw day continuer di continuer di continuer mën naa leen a nettali suñu sang su tedd soosu sayyidatuna Fatima sayyidina Ali yi ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam dox ba sëy bi ndox ba egg si fii loolu nag sëy yëpp ko am sëy yëpp ko am waaw kon nag comme ndegam da nga ko war a lijjanti ji suba kon ñi ngay boole war ngaa xool ba xam ndax mën nañoo ànd ak déet wax naa leen ni góor goo xam ni fa séene wut a def dara ku ko may soxna te bëgg mu toog fa ah waxuma du fa toog de waaye dina jafe lool di nga sonn moom soxna si dina sonn kon boobu it muy bu mat a bu mat a bàyyi xel suñu takkee ba noppi nag dafa aaje ndimbal sa loxo du ci génn mukk ni débarrassé wu naa ci xale bi dem na bu fi duggati fii amatu fi mu nekk dëgg la sax amatu fi mu ndax loolu nga yéene waaye nag sa loxo waru caa génn ngir mu dellu siwaat ngir boo bañee mu dellu siwaat sa loxo du ci jóge mukk fa muy njëkke mooy bu dee ku jigéen nga te sa dooma takki soxna indi ci biir kër gi bul dox sa digganteeg sa sa bul dox sa diggante sa doom ak soxnaam bul tànnloo sa doom ak soxnaam maanaam ni ko man la wala yow wala moom déedéet yow da nga am place dafa am fu la fu la suñ borom cër bu la suñ borom jox yaa ko moom xëccoo ko kenn soxna si cëram lu mu rëy rëy du yàgg mukk ba mu nekk sa waajuru jigéen kon cëru waajuru jigéenu yaa ko moom loolu nga moom nag cëru soxna si li sa cër di rëy yow waajur wu jigéen li muy rëy rëy ta dem ba dépassé ko egg si cëru soxna kon soxna si dafa am place yow nga am place te yaakaar naa ni nag waruñoo demander soxna si moom mu comprendre loolu yow mi jaar ci sëy ba amoon ni goro ba noppi yow yaa war a gën a comprendre loolu nag dëgg-dëgg kon yow mi yor sa doom ju góor mu takki soxna bu ñëwee man day su ma doon wax dañuy wax ne xale bu jigéen bi muñal waaye moom waajur bu jigéen bi lay wax ne ko muñal muñalal xale bi ndax gone nga yow te yow li mu xamul yow xam nga euh, su fekkee ni dafay koo xam ni soxnaam doomam ju jigéen moo takki soxna doomam jigéen moom lañu takk sab goro bu góor am na lu man am na lu mënu ñëpp ñu yam wax mag ñi ne doon nañu wax ne ab ànd moom bokk na ci li koy tabax di ko taxawal mooy di tege lu ñu man te bañ a lànk lu manul sa goro boo boo ko tegee aw sas mu de mu daw dem wuti ji ko bu subaa nga tegaat ko bu yàggee day yokkat de kon di tege lu ñu man goro yit nañ leen tege lu ñu man lu ñu jàmbare jàmbaar lu ñu am am jom nañu leen teg lu ñu man te ñu xam ni ki góor takk soxna moom day doog tabax kër day doog tàmbali kër kon li waroon waajuram yépp war na ko dara wàccatu ko ci te am na yeneen yi ko war mooy li waajuram tabax moom war naa uti lu mel noonu kon ñaari responsabilité ki am ñaari responsabilité yooyu nag dama yaakaar ne ku ko séen muy dox wuroo koo tegi charge waaye da nga ko war a yërëm te dimbali ko jàppale ñetteel ba gis naa noo ñoo xam ne ni ñuy dimbalee seeni gore bëgg nañ ko naam waaye ni ñeen dimbalee dee su ko dimbalee as gor so tabaski daa jot nga woo sa doom ji jigéen ni ko sa waa ji de xam naa ni mbir mi metti na ci moom léegi jëlal 200 cent mille yi bu ngeen demee ngeen jënd comme xar tabaski xale bu jigéen bi dellu si waat indi 200 cent mille bu jëndee xar kooku mënatu faa joxati cër waay boo ko bëggee dimbali moom waay ci boppam ngay woo muy góor ngay góor mu xam li tax ngay def ni ko nag xam naa ne dëkk bi metti na man nag yor naa fi loo xam mën naa li cee jàppale na ñoo xam ne sax boo leen ko bëggee may ñu lànk lebal ko ko ne ko lii nag dama la cee bëgg jàppale ngeen tabaski xam naa ne dëkk bi doy na waar téye leen ko rek saay boo ko mënee rek nga jëm ko bis bu demee bala koy delloo si waat nga ne ko téye may naa la asgor dafa am ñu koy dimbali asgor des ko sarax des ko ki surtout nak jaarale ko ci ko xamni euh soxna mom war ko yidif bu ko bëggee changer ab salon ah ne ko may dama am benn sama mbokk moo xam te ni am naa possibilité jënd leen ab ab salon mu ngi fi bi sàngam dinaa leen ko indil lu ngeen ci man rek bu soobee yàlla ngeen def bis bi dañoo ba indi xaalis ngeen ko déedéet yu mel noonu am na façon xam nga ministre wax lépp waaye am na ci noo xam ni boo ko defee nit dina garder dignitéem garde kaddu gi ci kër gi te des ko yem waaye bu fekkee ne sa looy joxe sa doom ju jigéen ngay jaar te da koy wan ni ko da ngaa war a yow yaa maa yor kër gi bu yàggee kër gi du ci boppam dina gis ko ñëwee ni man damaa bëgg a seen salon sama bàyyi nee na dañu jëndal ab salon bu bees góor gu am jom boo am na lu muy jaare boo ko ko waxee mu ne la bisimilah kon nag nit ñi di dimbalee aussi dañ ko war a seet bu baax a baax euh, bu demee ba am sa loxo bu demee ba problème am am na ci ñu bari ñoo xam ne bu ñëw xaat-xaat la ñuy ànd góor ñëw ni la sama soxna si de nangam ak def na ma nangam def na ma nangam ci maanaam dund fukki mu nettali la ko ci juróomi minute yi ci yi ci naqar yëpp wax na la nga amee naqar woowu jigéen doom ji jigéen ji moom it dem ca bàyyam ni ko def na ma nangam def na ma nangam def na ma nangam yu neex yëpp nag du la ko wax yu naqar yi dong la leew wax la yëpp yow di nga ànd ak sa sa sa sa mer toog ni xale bi toog nga ko toogal toogal ba mu ñëw fekk ma fii tàmbali nga tas sëy bi mi nga xam ni yaay yaay yor kili yaay yaay yor baatu kilifteef bi ki nga may soxna na nekk sa doom mu mel ni yaa ko jur maanaam sa doom ju góor ji fi nekk bu amoon problème na nga koy lijjanti ci sëyam noonu nga war a lijjanti ak sëyam yow mii nga xam ne yow yow la sa doom ju góor uti soxna bis bu ñëwee jàmbat ci yow doom ju jigéen jooju dafa war a nekk ci yow doom bu ko defee moo tax Alxuraan wax ni bu jafe-jafe amee ñoom ñaar ñu lijjanti mënuñu ko lijjanti nañu dajale ñaari kilifa yu ñu toog bu ñu waxtaanee te bëgg defaroo rek dina am waaye nag bëgg defaroo day am kon préparation bi ngir euh, nangu ni sëy bi waruma ci génne sama loxo mukk loolu bokk na ci yi nga xam ne dafay dëgëral ab sëy waxaguma nag kii sëy waxaguma ki ñuy jox soxna ñooñu ñëpp ay waxtaan la yu mën mënta xaj ci jataay bi euh, waaye kilifa yi rek ak seeni rôle te waxuma lépp sax wax naa ci dara rek euh, ñu xam ni ab sëy daal mooy fondement wu société bu ñu demee ba société bi góor ñi ragal a takki soxna jigéen ñi ragal a sëy wala gisuñu ku leen ñaan si jafe-jafe ngi bëgg am te bu yàggee mbon ngi dina tasaaroo te kenn du ci man dara yàlla yàlla musal yàlla ñu yàlla musal yàlla ñu yàlla jéggal yàlla